kokki nag ñun dañuy sant yàlla li ñu kokki defal fenn defaluñ ko sëriñ Mor Saxir loolu li muy njëkk def ci yow mooy personnalité lay def ci yow dalay won boo jógee ci daara ji ba dellu fa nga jóge woon nan nga war a comporté woo ña fa bàyyi nan nga war a dunde ak ñoom parfois dañ may sànni xeer naa ma yéen waa Koki gëmu leen dara man leen ah kay gëm nañ dara dañ dul nangu rekk ku ñuy fooye waaye bu dee gëm ak pas-pas kenn gënuñu ko def waaye dafa am lu ñu sëñ marsaxit loo daan jàngal te mooy fulla ak fayda Sëriñ tubaa daa wax dafa wax ni lu ne mën naa koo def ci nit ba mu des fulla ak fayda ñun bi nu sunu waajur di indi fii ñu fekk fi Sëriñ Saaliwu Mbàkke ci année 78 ñu nekk ay gone yu ndaw biñ fii ñëw te li amagul kokki yoonu suuf yi lañ jaar ba ma ñëwee toog ñaari fan di gën di dox sañ Maxtaar dajanteeg moom mu ne ma dalagu leen ma ne ko déedéet mu ne ma ana saaliwu demal wool ma ko ma woo ko mu ne ko demal dalal leen ñu nekk fii ci daara ji ñu dara safuñu dara gondi ñu dara feesu suñu bët lu du kokki lu kokki amul soxlawuñ ko bëgguñu ko intéressé wuñ ndax ki def ci yow li nga xam ni foo taxaw ñu naw la respecté la bërëb boobu mënoo koo fàtte te mooy kokki as li nga woote ñun kenn duñ ci jiitu lii sama benn mbokk bu fi jóge léegi muy sëriñ Abdou Mbacke Baara Doli muy cent mille moo ko joxe danaa ko wax mu mottali ko mu mat 1 million kon man maa la war a joxaat 700000 300000 a ngi nii. lii ay seg la sama benn rakk sama xarit ku ñuy wax Souley Diagne moo la ko jox 1 million moo ko def ci wajaahidu lii 2 millions la maa ko def ci wajaahidu lii un million la sama benn xarit bu ñuy wax mu Racine si moo ko def ci wajaahidu lii un million la sama benn xarit bu ñuy wax Farba Ngom moo ko def ci wajaahidu man nag dama fier ci di yalwaanal kokki sëriñ maam Cheikh sama rakk joxe na ci un million loolu nag sëriñ Touba mi nu gëm yaakaar ko dafa wax ni inna tilawata wasalaata ala nabi wa sanaahu kanzi allazi la yanfadu nee na jàng alxuraan ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy màndi xéwal yi nga xam ni yàlla jox na ko te jeex mukk te ku jàng alxuraan dëgg dëgg yàlla ne maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaxin kon ñun bu ma fi jógee bis ni ka tey danaa yor sama mbuus di wër di yalwaanal daaray kokki ngir aas li nga woote ñëpp danañ la ci fekk si say xarit sa doomu ndey muy Moustapha Ndiaye di Abdoulaye Dia loo nekk ak ñoom boo gesoo gis leen yaay ñoom ñoo yow sama benn wëllëra Tayiru Sarr nee na boo ñëwee da ngeen gisee man dama bëgg dama bëgg man ci sama paaru bopp balaa samedi bi ngay woote muy ñaareelu samdi bi jëm ci koor gi ma participer cent millions man ak samay niti bopp. man dinaa joxe 100 man mii dinaa joxe 100 millions incha allah man dinaa joxe 100 millions ko participer man ak samay nitu bopp à ce direct. jërëjëf euh, kon sëñ Bass. deux minutes deux minutes deux rek bàyyi ñu àggale li ñuy def nii moo ëpp solo lépp. waaye bi. as euh, xool as. jooy yii jooy teraanga la ndax sëñ Mor Saxir Lo ñun ñi ñëpp sëñ Mor Saxir ñu defar ñun lu ñu am ci àdduna sëñ Mor Saxir Lo gëmuñu kenn wóoluwun kenn référence kenn amul référence ñun ku sëñ Mor Saxir Lo. macha allah li tax muy jooy xam na ko. macha allah ñun rek as. sa jooy yii du jooy dara jooy mbégte la ak bànneex ak kontaante xool bu feesee tuuru Medoune Fall mii mm-hmm. ba nga koy teral ci teewaan di ko jox bi yëpp mag mm-hmm. sama jëmm tax ak jëmm Serigne Touba kon ñun waa kokki mënuñu laa fay yow ak Serigne bu mettoo mm-hmm. amee luñ leen lu dul cant ak ñaanal Serigne Mor Serigne Maxtaar Naar Lo li nga wax ci moom dëgg la kokki ku fi ñëw boo dee murita boo dee tijaana boo dee xaadira boo dee laaye na ak koo mën a doon sëñ mat saxir yitteem nekkul ci loolu la nga fi indi yaa boo wayee sag way da nga ko téye ba mat nga delluwaat ko fa nga ko jële woon moom li ko ñor mooy li muy def ci yow mooy alxuraan alxuraan lay def ci yow ak diina kon ci turu sëriñ saaliw mu sëriñ xaadim awa ba danaa la jox léegi un million joxel ko Serigne Saliou ci turam ak turu njaboot sëñ Xaadim Awa Balla soxna Soda ma nga ne toog di ko nuyu di ko ziar ànd ak sama mbokk yëpp jóge Touba muy délégation bu mag ñu ñëw fi xamal ne daal yow loo nekk ña nga yow sa mbir namm ca yabu ca ku ñu jël te sa mbir mooy mbirum daare kooku mooy mbirum sañ Moussa jërëjëf jërëjëf sëñ Bass léegi dafa am sama mu fi ñëw muy Serigne Cheikhouna Male Serigne Cheikhouna dafa indi ay taranga muy ceeb indi ko daare kooku